doomu dangu doomu dangu nuyu nañ la. waaw ñu ngi lay fay. lan moo war woon teewaay bi fii ci arène nationale. ndax suma suma frère suma rak rek Gamou Gueye ah, moo am benn promoteur bu ko tëggal komba ñu ñëw si aussi pour accompagner ko quoi. combat diggante moo kan. ah. combat diggante moo kan. Moxtafa Mbër am ah, waaw. Gamou Gueye jógee ci defet ñuy jox ko Tafa Mbër ngeen moom mujjee daan Liss Ndiago est-ce que xamul amul amul tuuti dis-dis bu nekk diggante ñaar amul. li nga tuuti dis mu jógee ci defet jógee ci jël ki nga xam ne Tapha Mbeur Tapha ci victoire bu jógee est-ce que amul benn dis-dis seen diggante amul benn. non làmb moom loolu dara làmb moom bëre ñettaa fi am da ngay daan wala ñu daan la wala nga machine yi loolu la am ah. xam ngeen Tapha Mbeur bu baax. waaw xam nañ ko kañ moo tax ñu jël ko. Mhm. day ñëw ci moom dañ dañu gëj la gis deppi sa combat ba léegi doomu ci lan la man ci li ma nekkoon rek ah. si liggéey bi laa nekkoon rek ah maa ngi ci ba léegi. Mm-hmm. est-ce que promoteur ñu ngi lay doxal ay combat wala gars yi dañoo xaw a lu dëgër nag quoi mais ñun ñoo ngi ci li ñu war a nekk rek ah. daa mel ni Général Malika neen bëgg na de dëkk na la de. man yow du ma wax mbëri waaye yow tamit ah, moom li mu si bëggoon mooy coow li yooyu la si bëggoon mais comme li rek yàlla xam na ne bu ñu tëjee su roxam moom rek ma ñuus ko barke yonent bi. ban AVC moo nekk sa kanam. ah ban AVC moo nekk sa kanam. ñu bari ah mbër yëpp comme ni ma koy waxee rek mbër yu bari ñoo nekk suma kanam waaye li ñu naan bopp yenul waa xam ne la bopp attan euh, bët yenul waa xam ne la bopp attan lan moo nekk sa kanam instant bi waaw mais xam nga mënoo def 21 combat man 17 victoire laa def booy compté si lamb ji ñu ko am bariwul journaliste bu taxaw naan maax général combat la je me dis xamoo làmb ñi koy wax ku mënti doon parce que loolu amul benn promoteur bu koy wax parce que du nekkul làmb quoi man promoteur yebbu ma sax ba may o naan maan diw aussi. Euh, journaliste yi wax ñu ko de borom moo ñëw ba ci ne yow la bëgg. non dama ne dafa am journaliste yi taxaw yi sànq ne combat bu neex la ñoom laay tontu. ñi koy wax xamuñu làmb. ban combat mooy combat bu neex. yi si kanam combat yi si kanam yëpp. parce que tey jii nañu wax dëgg mënuñu wax ay franc ay giri deux di ma wax ay yeneen combat ay ay général mas fii sa Balla moo ko mujjee daan xam nga nañuy wax lu logique quoi promoteur yabu ma ba may oo di ma wax diw xam nga li waaw kay franc bi nag. dëgg yàlla mais nañ koy comprendre parce que fi mu taxaw nii ñun taxawoon nañ fa doon nañ bëgg ñi nga xam ne bëre ñi nga xam ne ñoo ñu rawoon ci làmb e ci bëggoon yëpp mooy coow rek waaw kon moom tey may naa ko coow li rek. nag nga ko loolu man bu jaadu rek pare naa pour jël ko. waaw bu jaadu ñaari na ban nga ci gën a bëgg. bu jaadu rek yëpp aw lu ma si taamu mais bu jaadu rek pare naa pour jël ko. supporters yi. waaw ñu si li ñu war a nekk rek la ñu nekk ñoom aussi ñoo ngi si li ñu war a nekk waaw. état de forme la wala. Boy yaa ngi ñàkk na état bi mooy génn wala. man dama pare. xuloo rek nga ñàkk. non dama pare si lépp yàlla xam na ko. mais yi mënul ñàkk ci làmb ah. mënul mënul mook làmb seen boor bee pour ngeen am combat day xaw a métti lan mooy problème bi. man Ouzin victoire laa am nga lim ñu ma bëreel ñëpp 17 moom mi taxawoon fii bu bu waxoon ñaar ay ndamam du mat sax amaana. neuf victoires. mais dama dégg keroog Garga 2 mu ne mbër yi ci kaw dañ leen war may chance ndax ñoom bi ñu tollee seen numéro dañ koo def te yéen dafa mel ni dañ leen xaw a siis pour ngeen yéeg moo tax état te yéen bu ngeen bëree kenn du jooy état de kenn du jooy amateur ñëpp dañuy ñëw te mbër yu mag yi bu ñuy bëree dañ naan est-ce que amateur dinañ ñëw di jooy état de forme pourquoi pas mbër yu mag yi dañ leen may chance dañ leen dab dañ leen dab dañ leen dab ci lépp kon dañoo nangu bëgg a bañ rek la te ku fi bëreek ki nga war a bëreel ñu foxati ko man ku fi bëreek man ma foxati ndam li loolu rek a fi nekk en Ouzin. bëgg a waaye man. dégg xale loxo. maye sens yéen xale man damay mag may xale ban xale laay may ban xale laay may sens ban léegi ban xale laay may sens may xale ne xale. waaw Wil Ouzin neen ndax pare nga grand contre petit. pare naa man bu jaadoo rek wax naa la bu jaadoo rek pare naa pour bëre. merci